asalaamaaleykum ah, sama mbokki taalibe yi murid yi maa ngi leen di jéglu baax man Abou Madiyana ci gaaw a dellu si gi ah, wax ji may waaj a wax nag wax ju gàtt gàtt lay doon bu soobee yàlla waaye nun ñi xam ne ay dongal la ba noppi di ay jëwriñ yoo xam ne sëñ bi nun def jëwriñ nu war a taq ci sëriñ yi mbàkk mbàkk yi ñett gaw tool bi ni mu waree naa naa ngi dikk di waxtaan ak yéen tuuti loo xam noo ko seq te war na na képp koo xam ne am na foo féete sëñ bi rek ci wàllu yar ci wàllu tërbiya wala jàngale alxuraan wala doon yilimaan wala nekk kuy bayaan ci jumaa yi wala président daayira bu mbooloo di diglu wala euh, koo xam ne bi daal am na mbooloo moo xam ne bii sa kaddu am da bàyyi nañ ko xel ba ci ñi nga xam ne chef rajo la ñoom rajo rajo locale yi rek mm, nekk yi nekk ci département bi yéen ñëpp lii may waaj wax noo ko bokk dama bëgg daal ñu bokk fàttali ko ne li ñuy wax alxaswatul fikriya euh, noone lislaam yi dañ cee tollu waxtu wu ne di xool li méngóog nu ñu nuy yàqale ñuy indi microbe bu maaseeg loola danañ ko def ci xalaat danañ ko def ci féewale ay bokk danañ ko def ci mel ne dañ laa bëgg a jàppale fekk dañ laa bëgg a yàqal danañ ko def ci ñaar ñu yem di lenn ñu tafu ca kenn ka di ko may doole ngir ka ca des mer xemam lee kee tamit xeewe ko kee loolu lépp lañ ko di def loolu nag mënu ko waxtaane benn bis mbaa ñaar di rab xam fi fi waxtu wi toll ku la yemin ñu di ko bàyyi xel xam ni ñoom duñ tàyyi te lañu yàq ba noppi moom ne ma nga ñu téye waxtu wu nekk itam mën na ñàkk milliard par bis ngir ngir ngir yàq élément bu am njëriñ ci lislaam ndax élément bu am njëriñ ci lislaam buñ ko xasee yàq ña ña ko doyloo woon ñëpp ci xalaat euh, wala ñu fiiri ko ginnaaw wala ñu di dongaam dañuy yàq wala ànd ak moom ca loola lii may wax itam euh, waxe suñu borom la waaye damaa mës a toog ci Murtala waxal ko boppam ma dégg ba mu ñëw xel koom yenn si fa ci ndigalu suñu saliw man ak moom ak sëñ Amsatou Darou Mouhty ak sëñ Mame Mor Pakala ñoo bokkoon toog sëñ ma Amsatou di ko laaj tukki bi Amsatou Darou mu ne ko wa ahida lahu mastata'tum min quwwa bu ko sun borom waxee eh, wet gu nekk la maanaam jullit bu nekk wet ga nga dara rek loola mooy al istihdaad eh, min quwwa léegi nag loolu nii bu toogee benn barab rek naa yàlla noppi nag gone tey yi nangam ñoom dañuy gën a eh, foogu li ñuy def ma bëgg ñu xam ni man du yàgg ba may dara waaw du yàgg ba may dara lu ma wax itam ak lay bi rek laa ci jublu ak bëgg sëñ bi xam ni doon nañ doon mën noo seereel ni noo ngi jëm de doonte mënuñu it noo ngi jëm waaye li mu terale ci barke ci ñii ma wax ñëpp nga xam ne kenn ku ci ne am na ñu lay diglu ñu ne kel rek bu ñu waxee ñu naan sëriñ si nangam sëriñ si loolu du suñu war a gar ku ko ci ñi lay nuyu di la saare di leen ci ak taalibe bi di leen xiirit ci ñuy yee seeni seeni njaboot ci ak taalibe bi donga yi nga yor nga di ci yee donga yi nga xam ne dañuy dellu si waat ci yow at mën nañu ñëw di la saare ak boo wootee ñu wuy si fexe bay am ñoom communication ci waxtu wu ne ñu xam yëngu jamono ji ni lu mu yàgg-yàgg bu yëngoot ci dal lay mujj te lu la yàqal bu dalee duutoo ko jot di leen comme leeral ci waxi wolof yu leer yoo xam ni danañ ko mën a xam ci seetu bu yomb a xam xam itam ni waxtu wu nekk suñ Tuubaa di liggéey loo teg ko ci suñ kanam gërëmanteeg moom mooy sunu ngërëm mooy sunu gërëmanteeg Sëriñ Tuubaa ngërëmam ci noonu mooy ngërëmoo Sëriñ Tuubaa ci noonu wax naa fi ba tàyyi ne Sëriñ Tuubaa moom du dellusi dañuy boole ku nit rek te ñoom ñuy booleel waxtu wu ne li nu lëkkale ak ñoom ñu ngi nu koy fàttali mooy diine lislaam ji ak taalu bi boole jub ak tegu ci yoon ak yaru ak nangoo liggéey ak bañ a ci kenn ak doyloo saw aw saw ñaq ci xalaalan tey ba nu mu toll doy la ak boole suñu bopp kawar a jiitu jiitu ko ci war a topp topp ci loolu. waxtu wu ne war nañ koy leeral nit ñi ba ñu xam ne looloo nu booleeg Sëñ Tuubaa moo fi bàyyi woon Sëñ Tuubaa moom lay séntu ci ñun yomal xiyam ci kaw loolu war nañ leen di leeral ni leen politique bii nga xam ne nit ñaa ngi ci yëngu ba bëgg ceet yàq suñu bokk yàq si suñu bi di ci attaqué sëriñ si kenn ku ne di wax lu ko soob ah, pexem seytaane la mu métti moo xam ne bii kenn ku ne mën nga koo xool xam ko xool gi xam ko mu ngi tàmbalee ci tàmbalee ko ci Lamine Gueye ak Senghor bañ ko tàmbalee ba bisu tey bii nga xam ne romb na juróom benn fukki at benn kuréel boo xam ne ña ànd ak yow loola ma junni nit tekki nañ ca tekki gu ma sëkk goo xam ne ànd ak yow leen may loola amut ci ci politiciens yi du ci président yi du ci ay seeni anniversaire waxtu wu ne lu coow li bari bari bari bari bari eh, ñañ ca nomee ak ñeneen noonu dagu la ñuy am ca yem te li si gën a bari du ànd ak barke ñàkk ànd ak barke yow mën naa xam mooy la dalee ca limin ba bisub tey bii dëkk bu mat fanweeri kër boo xam ne bii benn politicien moo ko ci Sénégal amul jàkka ju mat téeméeri million yoo xam ne bii benn président ko def ci senegal amul yenn tool yu juróom juróomi junniy nit mën a dayaloo di fa liggéey di ca am tedd tedd nga amul benn entreprise boo xam ne bii Euh, ay politiciens yi tedd ñoo dajaloo créé ko mat juróom-ñaar fukki nit euh, taxawal ko di ci liggéeyal dara ci Sénégal ñetti junni ab euh, emploi di ca xëy amul li ñu am lépp ñoo ñu def ci banque yi ku jeexal dem dem bitim réew wut fa foofa ne ku retraité wala mënatoo seet fu la neex ci Sénégal nga defa dootoo am soxla ci nit ñi loolu nag bu buñ leen ko wonee ci seetu bii ma wax ba àggal danañ xam ne kon loola moom bëriwul njëriñ te daray alaxira moom ñëwu ci kenn du diiru jëm ci politique ngir alaxira maa mosuma koo gis moom euh, ñii nga xam ne ñoo nekkan ci doy loo xalaalan tayiban lépp lu baax ci Sénégal quatre-vingt-dix pour cent yëpp ñoo ko fi indi yomb naa xam murit gii ma bokk boo doon wañ ñi dëkk yee xam ne murit a ko sos nga xam ne suufas kese am na ko gor romb na junniy dëkk romb na ko ci Sénégal lemp bi loolaa ke ne transport bi loolaa ke ne développement mbay mbayum gerte wala dugub loolaa ke ne transport bi loolaa ke ne lool ci topp te mu nekk nekk secteur privé boo xam ne état moomu ko société bitim réew moomu ko ay naar moomu ko doomu Sénégal ko liggéey mu ne ko domm juróomi téeméeri million mën caa bàyyi ko loo ci topp ku lislaam yar ko moo ko fi indi ku lislaam yar moo ko fi indi kër gu sotti ci amul ñaa téeméeri million famille dëkk ci biir te seen waloon du nekkul ay locataire te suufu kese la woon borom fondement ko loo ci topp dongab daaraa ko def képp ku dongab daara l'islam yar la fonctionnaire rek ngay mën a doon mbaa nga torox wala nga nekk politicien di fa bukki suule bukki di déggee loolu def loo di war di trian bis bu seen nga ne naa fexe ba bis bi jàll soo ma yónni loolu dafa mat di leeral njaboot gi bañ di ko xam jar ba xam ne lora nga ne njëriñ la ngi nii dañoo nuru leeral daa lu teew mën a fab bi nit waaye saxut kasaraa bi di xaatin yéen si Ousmane maan xataa saa jaay wala muy du seen léegi nag loolu dafa di ko yeegoon yi dafa baax gannaaw loolu ruur mii nga xam ne bii noonu lislaam yi ñu ngi nu koy ruur maa ngi ñaan ñu waat ko xel bu baax di ko fàttali ñuy def ay bayaan ak i conférence ak i waxtaankat ak ñu mbooloo yi gaw ñu xam ne Touba gi képp mooy dëkkub lislaam euh, dëgg dëgg boo xam ne xam nañ ne lislaam lañ fi dund amul ci pays adduna yi mboolem noonu lislaam yi Touba rek mooy secret bi nga xam ni jàpp nañ ne ñu wuñ ko toj xam nañ ne borom posté nga fi xam nañ ne ñi fi dëkk seen lislaam ji jëral leen dee ba jeex tàkk seenu man koo nekk benn loxo yi dem amul waxtu amul ku leen di nos saa bu sëñ bi ne ayta ku ne jekk nga ki doon waaj a da koy bay ki doon waaj a ndeyam da koy bay ki a rob baayam da koy bàyyi ki nekk hôpital danaa nañ ma dimbali baa dem loolu xam nañ ko organisation boobu ba addina sosoo ba léegi suñ tuwaa rek ko am xam nañ ko bu baax ñoom noonu l'islam yi bu ngeen gisee nag bu ñu nee manifester wala ñu ne dara ñuy bay gone yi bëgg ñu dugg Touba liñ ci jublu rek mooy ñu la am Dakar am na Touba jubluwuñ ci leneen jubluwuñ ci leneen ma leen ko wax yoon wu ne nag lañ koy yaare waaw fukki dërëm képp bu ñu dajaloo woon di ko di ko xëccoo ci suñu diggante balaa jot dina so muur adduna bi seen yoon niwul nag ci màggal gu riis ak li màggal gu mag gi dugal ci Sénégal ci intérêt ak ak ak ak ak xam giñ ko xam ba ne bàyyi ko ci xam giñ xam suñuy intérêt ci xeetu appuyage bi ba ne bàyyi ko ci xam giñ xam liñ am ci ay intérêt ci Sonatel am ko ci solo rek ba lépp bàyyi ko ci xam giñ xam ci li fiy dugg ci marchandise liñ ci war a naam ba lépp bàyyi ko ci xam giñ xam ak ji ñu état ameel nga xam ni bii lu mu def ndakaaru bu dee bu dee ñeent benn kaar ba war naa ñëw Touba ndax Dakar ëpp wut Touba ñeenti kaar loolu fi mu xam nañ ko moom bàyyi gañ ko ci bàyyi dafa fekk ni adduna ba ba wu fi woon suñu nekku ci woon nekkuloowu ci kenn waaye du réere ko loolu lépp ñoom duñ ko wax baax gi nekk ci murid yi duñ ko wax taxawee gi sëriñ si taxawee daara yi duñ ko wax li ñuy bay duñ ko wax ni ñuy dundale seen i donga duñ ko wax ni ñuy jënd ay ordonnance duñ ko wax ñu jëlee Sénégal duñ ko wax duñ góorgóorlu daal leesu bëgg woon taalibe yi ne ni seen sëriñ si damay feebal koo fi dégg mu naa maam Abdou Assis ñëwaatan waxu ko ngir dara lu weesu bëgg wane ni ñett ñett tooga jotaay yëpp maam Abdou Assis mutuñu maam Abdou Assis koo dégg naa bu seen laaj jël si woon waxu ko ngir yëkkati seen laaj waxu ko ngir def ko référence da koo wax rek ngir bëgg a wane ni sëriñ sii fi toog jotaayub Sëriñ Tuubaa doxul ñu ñu sëriñ Abdou doon doxee loolu dong lañ bëgg a wax gone yi sëriñ Abdou lam fi nekkee woon dong la fi Sëriñ Muntaxaa mi nekke ci la Alaaji Baare nekkan ci la Sëriñ Seex Mati Lay nekkan ci la Sëriñ Buxaari nekk ci la Sëriñ Muntaxaa ne weesuwul waxtaan wi li war a ne ñu ne ci ak aar dëkk bi li des ci réew mi dañ ci doon cell li des ci dëkk bi dañu ci doon cell 88 li muy rëy rëy rëy rëy sëriñ Abdou wax ci benn baat état d'urgence lu ne am na fi quatre-vingt-douze xaw ma treize bi ñuy rey maître Babacar Sy ba Mbaye di bàyyi fa fekk Sëñ Saliou benn baat la ci waxut Abdoulaye Wade ma doon góorgóorlu la guerre de la euh, guerre de la fin ba ci Sëñ Saliou yónnee da ko ne li ma lislam ci boole yow kat ci laa lay wax mooy loolu ngay def lislam nangu ko lakeles waxu ca benn baat néew ko yëngalal néew ko dalal néew ko boo ci génnee nekkal ci lii néew ko boo ci génnee nekkal ca laa waaw sëñ bi amul benn waxtu bu mu fàttewul li ñu war a ne mustaam waxtu wala mi ngi fàttali lañ war a ne liñ war a ne nag moom sëñ Saliou Mbacké dafa waxaat ne l'islam boole ma ko kii addina boole ma ko sama liggéey xam naa ko nag bu baax a baax ndax ku jublu addina ak alaxira ngay wax waaye addina boole ma ko sama liggéey loolu la waxan daal nag ni fii laa fi yoosu jàll xamal ni fii laa ne ku topp sama ginnaaw ni fii kon kay ñii di wax da yem suñu taxaa rek suñ sëriñ sii nga xam ne dañoo jàpp ni sëñ bi daa matul wala daa war a génn ni état bi da ngay def nii bi da ngay def nii ñaar ñuy wujj di xëccoo loo xam ne bi xamoo ca dara mënoo caa wax sëñ bi wax lu baax la man tamit koy def wax na fii ni bakkan borot lu ko nit jënd ko ndax ku bakkan da tey ko dem sawar rek koy koy faj wax na ko ba tey wax na ba tey ne man àddina ba ma ca noppee yàgg na moom si muntaxaa bi wax na ko ba tey dëkk bi moom ak ak ak ak ak ak yoon wi ak sàkk sarax ak jàng ay kaamil ak sikkar ak jubal taalibe yi mosu siy jóg waaw léegi dañoo jàpp day bàyyi li ko bàyyam maam di def loolu di ko ca séentu tab bi ki loo xam ne xamu ca dara waaw ñaari ñuy xëccoo loo xam ne bii ñoom ñaar ñëpp koo ca ne bàyyil du baax ah ma dikkee nag maa nga xam ne da koy diglu ba mu ko ne bàyyil ba wax na fii ni man ku ma doon ku ma ci doon diglu dama la naa bàyyi ña nga ñaa xam nag lu mun leen a tax a bàyyi la ne mënut lu weesu bu ñëwee mun leen yéen a ko seq dañu waxtaan ba xam fu ngeen di mujj kon ñiy politique dañoo war a yem seen politique bii xam ne sequñoo ak Sëñ Tuubaa politique Sëñ Tuubaa ba mu fiy nekk itam déggewul wala kenn àndal ak bële sax àndal ak ngalano Cheikh Moustapha déggu ko kenn déggu ko diw la ñuy jàppale nag sëriñ bu ne sañ na ko doomi Sëñ Tuubaa yi ko def waaye ñoom booba itam muy siin lan muy Alaaji Fallu yoonu murid bépp technologie dafa amut xuloo amut xeex amut kuy jàpp ka bàyyi amut kuy dem ci benn sëriñ amut Abdou Diouf mii dem na ba Sëñ Saaliwu doon kalifa mu dooroon yoog moom musta ñëw Tuubaa àgg fa musta ñëw Tuubaa àgg kër Sëñ Soy ba Sëñ Soy ba yaareen la ko gisee mooy bi muy si yéem laat bi muy jàll si Sëñ Abdu Xaadir loolee nag moo tax kaddu gi mën a nekk genn goo xam ne sëñ bi buy yëkkati kaddoom dana dajale analyse ba xam lan moo ci njëriñu ak taalibe yi mu yëkkati ko teg ko si suñu loxo ñu ànd dem tekk nit nit ku ne ku ne yaa ngi yaa ngi dem wëri koo ak ku lay dig xam ne bii boo soo doon jot sëñ bi du ko yëg boo ko ñàkkee sëñ bi du ko yëg ñu jàpp nag ni ginnaaw kenn ku nekk da ngay doxal sa bopp sëg taalu bi nga wut foo ko yemale seet koo koy seqal ñu jàpp nag ne dañuy fab sëñ bi def ko benn matériel boo xam ne bii ko am lu la naqar ni daa war a wax tey jii bu ñu doon na wax ku wax lu la arrangé wul nga dal ci kaw waa léegi opposant bi ak ak ak ak ak kii bi mën nañoo fexe ba sëñ bi ni leen ni état bi bàyyil opposant bi seen euh, xolam sedd wala man la opposant bi bàyyil xol xol seen xol sedd comme ci bàyyiloo say minita lànk waaw léegi nag ni mu def nii moom ku ko ci gërëm yaa xam am na ci ngërëmul maamam ku ko ci wedd yaa xam am na ci ngërëmul maamam maamam nag li ngërëmum wutul suñu ngërëm wala di ko isaa rayta ma laa ko suxtu man loo wax sayta fa la si wax ne que ral xal ko isaa lam turdi ma laa ko fay an salisa wax loolu waxi suñu tubaab la nit ki li tax yàlla sàkk ko ci la war a góorgóorlu li yoonam newut mënu jaa góorgóorlu ba am ca ndam loolu nañ ko xam nan góorgóorluwaat bu baax yee gone yi bu baax xam ni xabtal gii ñu leen di xabtal ci naa bu ngeen yëngalee tubaab sëñ mi wax mënut a tax sëñ bi waxtu bi mënut a wax. attaques yi ñu bëgg Baye Fall yi jaamaarloog nit ñi ñu naa Baye Fall yi ak nit ñaa ngay xeex du am police yi tooñ nañ ñoo tooñ ñoo tooñ sëñ bi ñoo tooñ Baye Fall yi ñoo tooñ donga yi. donga yi nit nit ñi xëyuñu woon di manifester Touba ci àjjuma ji gontu ñu def ko Mbàkke lañ doon defee la ñuy def bu seen ñibbi yëpp. bu ñu leen bàyyi woon ak bàyyi faal yi bàyyi faal yi ñoom dañuy ñëpp ñabalanteeg ñoom bañ ni si wu dem ñibbi tëri ndànk du am ñoom ña fa taal ay ba nit ñi attanuñ ko fenn fa nit nit daw jëm fa ñooma loolu mooy dëgg dëkk bi ci boppam la ñu war a dugg sëñ bi denku leen dëkk bi ñoom autorité bi seen yoon néew si nañ toog diglu ba sëñ bi ñu leen defal leen ma nangam bu ñu pay dem ba ba àddina tukki loola yam lacrymogène yi waruñu ko fay taal ndax sëñ bi diglewu ko bàyyi faal yi néewu leen kaay leen wala dégguñu fi xeex bu ñu doon manifester it sëñ bi koy tere ci coobareem wala mu teraloo ko Baay Faal yi wala mu ni diw demal wax wax ak ñoom waaye ñoom bu bañ accès fi nga xam ne fi la Tuubaa digaloo ak Mbàkke lañu war a dëpp léegi nag ñu wàcc ko ci loxol bërëm dëkk bi ba moom lañ ciy laaj dara gën a leen a tooñ ku am looy wax wax leen ni leen amuñu droit dugg ci biir dëkk bi di fi manifester waaw ah, maanaam di fi àtte ñuy manifester sañuñu ko dara lañ fi sañu lu weesu toog bañ woo leen ci ndigalul sëñ bi fu fu baat ba jeexee ñu ne mot dellu ci la nga xam ne bi état ko yilif rëbëjëge wu ñu bëgg leen dëkk bi rëbëjoo ngir sëñ bi wax ba def ko occasion jaare ke naa sëñ bi ñu jox ndigal sëñ bi lim leen digal te ñorul leen defuñu ko du opposant du du du du état kenn ku ci ne dangay ñabaloo sëñ bi waaye du caa yéene ni lu mu la wax nga def ko ndax dajale woon na leen ci Masaalikul leen andi leen te déggoo. bu ñu ko defoon ni mu waree kon duñ jëkki ba léegi ni sii mu mel ni sunu déggoo daa des seen àddina jii moo leen ñor ak taalibe ñoru leen sëñ bi lañ bëgg a mubboo ba fab taalibe yi tay leen ci kaw sëñ bi wala ñoom lañ bëgg loolu du am taalibe yii nag ñoo war a yeewoo ci loolu buñ leen wootee ci manifestation ñoo xam fi ñuy jëm bu ñu dajee teeg bàyyi faal yi ñu fexe ba jubóog ñoom xam ne ñoo bokk lu ñuy def bàyyi faal yi nutuñu kenn li ñuy def dañ leen ko digal ku ci doxate ba dajee ak ñoom masaal ak ñoom bu kenn nangooti di def loo xam ne bii day waral ñoom ñu taal fi ay la ramasal wala leneen ñaaj dëkk bi dong lañ bëgg bañ ne la xew Mbàkke xew na Tuubaa nangam nit dee na fa te loolu amana du tax ñu teg seen dëkk bi loxo loolu du am mukk waaye rëbëjee ko ba mu mel rek Tuubaa dañ koo ruu sëñ bi wax obligation ñu jaare ke loola ba am ci lañ bëgg wala ñu not ci kuñ bëgg a not loolu lañ bëgg te loolu daal maa ngi jéggalu nag ci gaaw a jël si gi loolu nag damaa bëgg. ñu taxaw tam di ci yeegone yi ndax nit dara xew kenn ko ne di wax itam bëriwul njëriñ bayaan yi nañ koy wax di ko leeral sëriñu daara yi di ko wax di ko leeral jàng di ko wax di ko leeral di ci yee jigéen ñi di ci yee gone yi di ci yee mag ñi di ci yee màggat ñi di ci yee yi di ko waxtaane balaa dara xew ñëpp itam maase sëdd suñ tubaa ci xam ni ku nekk Ndakaar ku nekk Ndar ku nekk feneen la yem ñaaj alali jàmbur di ko yàq di ko saax-saaxee ñu di ko séen di ko tudd ab julit ab jullit war na koy moytu du tax li ngay faj faju te loolee nga jël du faj sa soxla ndax kenn musu koo def ba ba ni lii laaj a gañee bu dee lu ñuy lekk boo ko lekkee mu rees bakkaar ba da lay topp loola de bu dee xaalis bala nga weer du doo gis lu bokk nga yàqal borom te doo ko xam du la xam ba ban laa baal doo ko mën a gis ba ne ko baal ma àq mu yàq nag sa alaxira dolli ci waaw na ma jégal la na ma jégal la na ngeen ma jégal